kii nga xam ne mooy Souleymane Ndiaye ah ba mu duggee Goudomp kat wax dëgg yàlla am nañ fa ndam bu mag ca département ba ndam bu mag ca département ba lañ fa am ndam boobu nag wax dëgg yàlla am na luñ ciy raxaale lañ cay raxaale mooy am na loo xam ne tamit nee nañu waroon na gën a mën a rafet waaye du tee rafet na ñoom daal li ñu bëggoon mooy objectif bi département bi dinañ ko coppet jël te bu am na loo xam ne bu ci ñuul woon ci soow mi wax dëgg yàlla ah Goudomp tey ña nga ca leneen ñu seeti Souleymane Ndiaye borom 2STV. eh eh ngeen ne lan. salaamaaleykum ñu ngi am fierté bu mag ci li nga xam ne def nañu ko muy ndam bu ñu am ci département bu Goudomp liggéey bi rafet na parce que am na ñu fi yaakaaroon ne bu ñu indee seen leader mu ànd ak ñoom danañ fi am loo xam ne tey position bu extraordinaire waaye yàlla def na ba ñun ñi nga xam ne ñooy waa bennoo door nañu waa yeew yi ba nga xam ne ñoom seen bopp ñoo yeew seen bopp dama ne département bi ni ko amee ci li ñu rawee gars yi wax dëgg yàlla plus de huit mille voix kon loolu mooy góor góorlu bi ñu ci def ak ñun nu ñuy ñëwee ànd ak doomu Goudomp massifier propagande jàppale leen def ci suñu moyen administratif maanaam suñu moyen yi nga xam ne moom la ñu amal suñu bopp pour jàppale population Goudomp ba ñu am département bi ñu ngi koy sante yàlla waaye nag bu fukki di gas fukki di suul yoon du fa mën a am mais nag yàlla dimbali ñu ba fukki ñuy suul ñan lañu ñu gas dafa xóot ba nga xam ne mënuñu koo maasale bu ñu ko mënoon kon tey dinañu perte li nga xam ne mooy département bi mbooloo nag mooy doole te doole googu il faut ñu ànd ci bokk ndey bokk bàyyi parce que ñoo bokk bennoo loolu mooy prouver ne ànd bi c'est sincère ma leen di wax ne population Goudomp incha allah rabi mm-hmm. danañu gën a re renforcer wadran yi génn ñi nga xam ne dañuy ut ay buntu pour jéem ñoo suuraxal te ñu bokk ñoom parti loolu ñu ngi koy ñaawlu te le président de la République Macky Sall danañ ko ko eggee moo xam ne y a des choses yoo xam ne ça va arrêter et ça va arrêter ah dama ne ànd day rafet jëf day rafet lii nga xam ne moom la ñu bëgg ci Goudomp yàlla dimbali nañu ba ñu am département bi te ñun indi nañ ci loo xam ne wax dëgg yàlla population yi jàppale nañu ci victoire bi nga xam ne am nañ ko pour département bu Goudomp département bu Goudomp nag nit nañu xam nañu nit ñi gisal nañ seen bopp te xam nañu ne incha allah rabi li ñuy xaar ci bopp département bi dinañ ko def ba mot sëkk. day rafet. tàggatoo day rafet. waaye jëf jëf yoo xam ne wax dëgg yàlla dangay nekk ci parti am nooy doxalee ñun dañ koy ñaawlu. ndax. ñoom du ñu ragal dara dara du ñu stressé waaye dañu gën a renforcer réformer motiver propagande massifiée ba ñu xam ne fii ñu jëm ci législative yi on va prouver que l'union fait la force ak Souleymane Ndiaye beneen doole la ci biir guddoom ngeen ne. Hmm? ngeen ne. loo leen wax. ngeen ne. rasulillah.